Oh, bul forcer ak soo songale na ko songale na ko daan na fuuf doole. la ilaha illallah. ayca jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci plateforme yi ginnaaw bu ma leen kontaanee maa ngi baal ñëpp àq di baal ñëpp àq di leen safoo di leen ndamoo di leen tiitaroo dinaan li nga xam ne moo ñuy yokk doole mooy abonné aimé partage ñoo ngi koy sàkku si yéen bu baax a baax a baax mais ñu ngi am rek tey contentement comme ni ñuy toogee fii toujours rek di leen présenté li nga xamante ni moo wër làmb njabootu làmb axlu làmb rawatina champion yi Ndiaye production moo ñu woo arène nationale le décembre kenn ku nekk xam na ni diggante ki nga xam ne mooy Diop 2 ak Mor kankan mooy yëngal réew mi fii ñu toll nii. parce que Ndiaye production macha allah day def ay journée yu yu yu yu neex ay journée yu am ampleur waaye day def ay journée espoir di ci boole ay xale yoo xamante ni macha allah dañoo bokk ci làmb làmb di leen bàyyi xel rawatina kii ma toogal tey muy général bu Pikine. nee naa leen bi muy mujj arène nationale ngi fa jóge ci ki nga xamante ne mooy yankaam numéro 2 ñu gis combat bu métti la la bëree ba am victoire euh, par xeex yu métti xeex bi moom xamu fu mu jégee nu mu demee noonu façon saaga bu ne dégg na ko làmb ji passé waaye ren ñu xool lan la ñuy indil ak ki nga xamante ni mooy la sandeer mbër maa ngi lay nuyu bu baax di la ñu ngi lay fay di la delloo ziar ginnaaw ba sant yàlla julli si bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ moom Xaadim Mbacke di sant tamit maa Ibrahima Mbacke ak suñu sëriñ si Atta yàlla na yàlla yokk leeram di ñaan yàlla xaaral ko àjjana suuf woyof si kawam di sant mbooloomu doomu aadama di sant ñëpp maa ngi tuubaat nag di jégaluwaat bu wér a wér a wér waaw di sant ñëpp daal maa ngi sant ñëpp di sant sama papa yi rawatina sama yaay yi toog di leen sant ñoom ñëpp képp kuy bëggee général rek maa ngi lay nuyu di la bëggee di la sant bu baax baax a baax. nga am bés euh, le sa ñaata combat. mooy sama cinquième combat. waaw maa ngi quatre combats quatre victoire yëpp daaw laa ko bëre waaw benn at laa defagum si làmb. nga génn daaw def quatre combats macha allah def quatre victoire nga def dynamique bu am bu am solo macha allah si làmb nga ubbi sa saison en ci daan tëj sa saison ci daan mais est que jox nga ndàmpaay euh, kaaw. non jox ma ko ndàmpaay. ko woon yëpp jox ko na. du loolu dara làmb moo demee noonu rek làmb yooyu laay soo ko bëree làmb sax mu waaw ba temps bi jeex man làmb yi daan bëree lamb yi ma daan bëre yëpp une minute lay am wóor na sëñ Fall soo seetaanee yeneen combat combat ba laa ñëw métti loolu mënul ñaax damaa waaw moo ngeen bëree bëre tension est ce que nekkul dafa am lu ñu la ci làmb jooju tax mu yëpp parce que général bi mu ñëwee indiwul li nga xamante ni moom la daan indi combat mi baax. ah dëgg li ma si woon dafa bëri ma see sonnoon ma jaaxle si waaw parce que damaa ñëwee du ma daanu waaw dama see dégg lu ne su mu dee la bëgg wax naa ko naar mais damaa ñëwee tey du ma daanu ñëwee mu pour bëri ñëw pour dara moo tax sax mu gën a dama ñëpp la mën teg na waaw dund lu ne problème mu làmb wax ci bëri gars yi commencé wax ma xam ne man mii kat lii làmb kasal te jaru ko quoi waaw moo taxoon làmb ji demee ma ne naar day métti rek mais làmb ji du ma ko daanu ñëpp ne ne moom mën te gars yi bëri ñu waaw ma yàlla baax na loolu tax ma bëree noonu ma ñëw teg xeex ak santañ mais man sama làmb ko du diire man combat une minute benn yoon laa ko bëri sama premier combat yeneen combat 16 ak 18 secondes laajal booy noonu la demee aca ñu yàgg nañ laa suivre xam bu baax say làmb ba pare euh, di xalaat aussi fi nga jëm soo nee làmb ji dama ko bëree ay problème bëree kook du ma daanu ba tax nga ñëw bëri ko ba temps bi jeex euh, ci ay dóorante rek am na benn moment sax ñu ngi lay def signe naan la wàññil te nga bëri nga jóge fi lan nga doon dégg écrit bi daa am problème wala booy bi booy bi lañ ne tey na yàlla na daan waaw comme genre yooyu rek xam nga rek booy moom ñu muy déranger daa bëri na ma yàlla baal bëri waaw man soo xoolee man ñi may topp ñëpp ñi may supporté stade bi lu muy bëri bëri lu muy fees fees ay xale rek may topp sama rax yi ñoom ñooy organiser lépp ñooy defar lépp ñooy jënd bël ko tike yi ñoo koy jaayante barki si ay booy rek may topp sama rek mooy loolu te ñaa xam nga rek damaa si yoon quoi te mënum bëgguma wax quoi nu mu demee mais yàlla baax na mais man defuma kenn dara waxuma kenn dara amaana xale laa te ma waaw yaa ma gën a xam mais damay sant yàlla bëgguma wax quoi mais yàlla baax na. wutal boppam ay noon mais est ce que yaakaaroon ni daa am loo def euh, lu lu waral mu demee noonu dafa mel ni problème mu équipe ak jàmm a ma bëgg mbër yëpp. wallaay azim man damay toog sax di ko wax naar man ko man la laa defal gaay gaay ma gisee ñu may teg si kaw wallaay azim te loolu sax damay jaax dama fu ma toll damay suufeel sama bopp amaana tamit ñoon tamit xam nga rek amaan tam maa leen dérange man ñëpp laa sik ak jàmm amaan li ma nekk si làmb la teg la samay victoire xam nga rek jalousie commencé dara mais ñoom jàmm laa leen yéene ma leen ñaan suñu dafa leen jàmm dafa leen tawfeex waaw loolu la est-ce xam nga ni victoire yooyu li la ko may moo la koy maye di ci kanam est-ce que bi nga xam ne ci nga nekk ba ci kanam sa plan de carrière yaa ngi koy bàyyi xel. baax bu ma tër ne law man su ma paree sama combat dimanche lundi wër na Serigne Sall damay xëy dem entraîner sama mag ambourage di mu may dégg moo may woo carrément ne ma mbër dama nga dallu chaque ba nii nii nii fan contact def lépp mu ne ma soo doon maa yow billaay wallaay damay dem tëdd nelaw ba ngoon ma ñëw géej contact dem tëdd nelaw wóor na sa ñu ma li ma la gis nii nga nekk si ak li ngay ak li ngay def nii wallahi fukki la sendeer yaa leen mën mu li nii di ma ko di ko di ma ko teg ak lu ma nga may def nii boo gëmee sa bopp nga demal nga tëdd nga nga dallu wallahi loolu la mel ne bu entraîné ma nga tëdd nga dallu sax ngoon ngay ñëw ñu ànd ba le 22 nga xool dama nga dallu wallahi soo leen di contact yi ñaar non moom moo mën moo ma jàngal bëre kooku lépp la mooy sama idole moom laay topp si laam moom laa bëgg non non demeewul noonu man instant yi nee naa ko nee naa ko keroog ñu ànd vidéo yaay sama téléphone man ko man le 22 du sama yitte le premier mooy sama yitte yaa ak Ibo Kër Mbaye Fall ndax man xam naa la standard ma koy tegee boor mais mais loolu sama yitte mais instant bi xoolal dañuy entraîné di contact day fàtte boppam billahi nekk si man chaque jour chaque jour mu ne ma nii ngay bëreg la sender nii ak nii si loolu lañ nekk te incha allah wallahi loolu laay bëreg la sender li ma wax pare naa bu yàgg su doon dimanche bi man pare naa mais Sariya nee na Lassander moo mën. bala ngaa ñëw ci Lassander. Lassander yaa ko tànn sa bopp wala Lassander moo la jël. la sa ndeer wax moo baaxul Pa Fall mu ngi fi ak sama coach Matar kii sama manager Matar Ndiaye ak sama ak Abdoul ak kii waay promoteur bi ñu ngi may dégg wóor na sëñ Fallou avancé jox nañ ko quatre wallahi nga ne déedéet te bëri nañ ay am ñaar ñi bëri nañ grand combat mbëri mag bëgguma tudd seen kenn ki jël na ko deux semaines delloo ko keneen ki moom audio mu ngi sama téléphone nii Matar Ndiaye moom envoyé mu ne carrément bëriwuma général Pikine moo grand combat moo ma la wax wallahi asim

waaw bi booy bu ndaw bi la l'enfant vierge bi maa la gën a dof la seen der aller ak retour na sëñ Fallou lamb ji la lamb xale yi la booy ma fiyaa 3 kilo bi nee nañ benn gull la dama la koy jox booy ñoom Fadel ateex booy ñu moo ko war na sëñ Fallou booy est-ce que nekkul dañuy dalal sa xel la sandeer ma xam la sandeer la sandeer nga xamante ni da ngay dóor muy jug ngay daan muy jug ngay wëlbati muy jug ngay yóbbu saako yi muy ñëwaat la sandeer mel na nga am de ce que xam nga ko bu baax incha allah amuraas bu may dégg benn benn song la benn jàpp la ma dégg làmb ji benn song la benn jàpp du ma sax xeex ak moom noonu na pare du ma ko dóor dinaa jàpp dinaa ko daan incha allah mu tëdd ci kàttanu yàlla. ci lan da ngaa yaakaar ne dóor yi nga doon ki nga xam te mooy yanqaaw numéro 2 moom la ngay indil lasandeer génn. non du ma ko dóor nee naa la du ma ko dóor sama papa la du ma ko indi dara jàmm ak salaam ma xam ne xale laa dafa ma ko jàpp day tëdd. Oh, waaw sama papa mu ngi fi. lasandeer <laughs> sa papa. waaw sama papa la sama la de ndax daan na sama papa Modou Fara Modou Angar xatar bi bu rëy daan fi mét métzo amudaas wax na ma yooyu yëpp. waaw te sama papa Modou Fara ma ko wax Camara ma ne waroo woon jël ma ko non père baa ma jëlal la revanche dama koy duma dama koy daan tafaanaar mu may dégg revanche laa ko def daan na fi ñaari mbër fii Pikine incha allah su ma ko jàppee dinaa ko daan ci kàttanu yàlla. yaakaar ni tey bu duggaatee biir Pikine daal du fi am dara da ngaa fas yéenee faj me. incha allah si kàttanu Serigne Fall dinaa ko daan man maa ko wax si kàttanu Serigne Fall la sax dinaa la daan ci deux minutes incha allah. Gassi Nder xanaa du yére bii nga jëlee Guinée xaw ma Mali xaw ma fan moo tax nga am nga am fitu taxaw fii naan la. déedéet <laughs> Guinée wala Mali <laughs> yére bi rek gaa force am ma sol ko mais <laughs> waaye man sama bopp laa yaakaar de ak yàlla man sama combat yëpp booy ñu ngi may dégg de daanaka xaaj bi gars yi dem wuti gars yi ñoo ne ma mbër làmb gi sa làmb te saa ma demee làmb jooju a yomb waaw man damaa gëm sama bopp daan sonni daan ñëw dem wuti galaaj wuti lépp mu ne mbër baay fu ma dem gars yi làmb ji du baax ma ne maa ngi daal jaaxal nga ma ko billaahi gars yi moom lu ñuy wax bu leen déglu man damaa gëm sama bopp su ma jàppee rek day loolu laa mbër daan na def noonu surtout xale yi léegi. daan nañ def noonu denk ci dynamique boo xamante ni boo leen nee gàllaaj sax dañ naan la li ma entraîné xanuñu ci gan gi dama koy duma wala dama koy daan mais dañuy jékki-jékki am 4 5 combats commencé naaw ko est-ce que ah, ñu ngi koy bàyyi xel baax man damaa nekk nit koo xamante ne ah yàlla yàlla moom doo lu ma dimbalee man ay naagu ay succès ay ñoddi man yooyu sono lu ma ko waa man Baye Fall laa taalibe laa waaw man dañ maa yar damaa nekk samay papa samay mag samay rakk ñu yar ma waaw moo tax man ma naagu si dara naan fii moom lépp looy jaar am na ku ko ëppale man su ma gisee la ma ma tere nelaw samay morom comme par exemple duma du ma soxla dama de ku si mel ay Diop de damay toog fii di leen leen xalaatuma daanu voilà parce xool sama morom lu mu def ma def ko jéem a def lu ko raw du ma jéem a tollu lu ko raw ma def ko gëm-gëm boobu laa am baa ma jàpp daan na ma dégg nee naa ko na ma dégg suñu jàpp du ma koy jàpp daan ko mënu si dara fu mu taxaw ma fekk ko fi incha allah bari naxantewu ma li ne si man laa koy ñëw wan man du ma naxante sama combat bi du ma naxante heure bii laa ma di jeex waaw. ayca nga tudd ku de ñu gis fi mu toll ci li nga xamante ne mooy gannaawam mbooloo gis ku ci mel ni Mor Kankang ngay bëre journée bi nga xamante ne war naa ànd ak yow buy Pikine ngi koy bàyyi xel ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ñu ngi koy bàyyi xel ñooñu ay champion lañ ay jàmbaar lañ ñaanal jàmm mais teewul ñoom ñëpp dinaa bëre ñoom incha allah mais ma ñaanal jàmm ak tawfeex rek ba nga doomu aadama doo soxor waaw ñoom moom ay champion lañ parce que dañoo bay seen waar ba yegg fi ñu war a fi ñu yegg kon ñun tamit dañoo war a bay suñu waar ba fekk si leen waaw si tànk yooyu laa nekk te incha allah maa ngi maa ngi ñëw fekk si leen waaw di woo waa Pikine rek man moom sama làmb mobilisation moom nice man la may wax ma ne gars yi jënd bologu ticket yi waaw nañ jënd ba bëgg a 10 bolog laa bëgg wër na sëñ Fallou maa bëgg gars yi ñëw jàpp si jënd si bologu ticket yi ma jox ko booy booy dugg esat waaw man sama làmb booy dañ may topp 1000 booy dañ may topp 700 personnes ñooy dugg 300 personnes yi toog xaar ba ma daan ñu àndaat ak man ñibbi waaw loolu moom rafetlu ma ko quoi waaw si waa Pikine di si woo gaa yëpp ñëpp bàyyi ma kenn na si gaa yi jàpp jënd bologu tigay dix bologi waaw ñu jënd ko yaa ma gën a xam bugguma benn booy waaw billaay bugguma ko billaay damay génn ñëwaat fii ma tiim wala man lii lépp ma toog billaay la moo doon lii yëpp dugg esat gaa yi ne ma noonu mbër bi yëpp a jeex billaay gaa yi amuñu tigay ma ne kon loolu demee kon gaa yi nañ si gën di jàpp waaw loolu laa am waaw ah, dama leen wax ñu dala seen xel rek xam ne te wóolu ma te ñoom sax wóolu nañ ma na sëñ Fallou wax ñu gën a jàpp rek gën a jàppale seen mbër man ñoom laa man foo ma fekk ñoom laay toogal du ma ànd sax samay morom samay raq yi laay toogal ak ñoom maam Cheikh ñoom Matar xam nga ñoom Fallou ñoom ñëpp ñoom Passeman Baye Zal booy ndaw rek man ñoom laa am ak ma fi yaa 6 bi ñoom Fadel ak waaw ñoom Ateex Rijal Cheikh Fall booy ndaw man ñoom rek laa am wut na sëñ Fallou ñoom rek laa àndal wallaahi. ayca lan eh, tàggatoo internet yi. waaw tàggatoo bi damay woote rek di woo waa Pikine di woo ñëpp di ñaanal tamit sama mag Amouraas waaw di ko ñaanal ndam di ko ñaanal mu jël pee si kalaaf bi ba génn jël tournoi bi loolu laa koy ñaanal ko am loolu mooy sama yitte ren ci année bi année bi bopp année bi man damaa fàtte sama bopp waaw moom moo ma ñor instant bii nii pour tournoi bi mu xool nu mu ko jëlee te incha allah li ma ko gis mu koy liggéey sama xel dal na ko waaw ak liñ contact li ma gis si moom macha allah yàlla rek moo si des mais instant bi moo ngi lépp mu koy ñaanal mu jël tournoi bi si dërëjëy sëñ Fallou mi ma yaakaar loolu rek laa koy ñaanal di ñaanal déranger waaw le 26 janvier lay bëri yàlla na ko suñu borom defal ndam moom sama waaye sama lépp la day sonn si man day sonn si man billaahi yàlla na ko yàlla defal jàmm di ñaanal mbëri Pikine yëpp ñëpp tonto amul combat maa ngi koy ñaanal combat si daraje Sëñ Fall moom sama waay la moom tamit di nuyu tamit sama xere sama xarit moo ngaaxa yàlla na ko yàlla defal jàmm ma ne ko combat li des nag mooy waa Pikine laay woo di leen woo sama waa koñ sama waa koñ laay commencé fii kàkku ràkku si kaa góo sama boy mafia bi ñoom ñëpp di wax làmb gi seen làmb la la sendeer waaw benn gulu la mafia si kule bi dañ koy moo na si gars yi jàpp ñënd boole ko tike yi yaa may dégg ah? di wax ñëpp Matar yàq suñu émission waay Matar nee na Barça dugal nañ ko. gars yi dugal nañ di maa ngi woo waa Pikine maa ngi woo waa Pikine di woo sama jàmbaar yi sama grand Alé Lens moom lu mu bàyyi seen mafia mafia café gi maa lay woo ñëpp di waa Angar di leen man Angar samay dañ may tiitoroo na sëñ Fall di ma safoo waaw ñoom laa am nañ ma jàppale bu baax a baax a maa leen woo si làmb ñu jënd si bologu tike di woo sama mag sama xarit Anta Babacar Ngom waaw sama sama xarit sama lépp la war na sëñ Fallou di ko wax waaw nu ko daan defee mu defee mu ñëw jàppaat si bologu tike jàpp Anta Babacar jàpp si yow grand vieux ak suñu maman maman Ndéla ngeen si bologu bu baax di woo sama grand grand bàcc inspecteur bàcc Tall waaw papa Ibrahima li la wax tamit waaw moom da siy jàpp chaque jour mooy jënd tiset yi waaw di jàpp si bologu tike yi bii dama bëgg mu jàpp si bologu tike yi bu baax a baax maa ko si woo di woo tamit suñu papa Doudou Koné di ko si woo bu baax a baax a baax di ko wax pour mu jàpp si bologu tike yi grand entrepreneur waaw di woo ñëpp di waa Curuba ma fiyaa indien yi waa gej ma fiyaa Omoro bi maa ngi woo ñëpp di leen woo si làmb ji waa Tivaouane Pël ñëpp maa leen woo wër na sëñ Fallou di woo bi cat ak cat wër na sëñ Fallou waa koñ Babou Faye maa leen woo bopp coor ñëpp si réseau di baa ma fiyaa bi ñëpp maa ngi leen di woo sama ASC tamit waaw ñoom kenn la ASC Kisaan maa ngi si woo ñëpp ñoom dañ may na sëñ Fallou ma duggee stade suñu sama ASC di su ma rek sama tur la njëkk a yëkkati ak si koy yëpp aw ma seen fay waaw teewul tamit waaw man Pikine laa doomu Pikine laa mais am naa ASC quoi waaw loolu dara ma si kenn mere waaw parce que sama la fii laa juddoo waaw ba làmb fekk ma si si ASC bi wóor na sëñ Fallou di woo ñëpp daal boobu coor ñëpp maa leen woo ñoom Pikine Dakar Abdou Diouf waaw làmb gi seen làmb la ñu jàpp si bu baax a baax a baax a baax waaw di sant sama jàmbaar yi ku si sama papa la sama lépp la way ñaanal jàmm ak tawféex ba ma teg couronne bi si digg boppam na sëñ Fallou ak Tafa Naar ñoom ñëpp daal wër na sëñ Fallou aw ma seen fay di sant sama staff yi ñëpp bàyyiwuma kenn staff yi ñëpp maa leen di sant bu baax a baax a baax a baax jërëjëf. Aïcha jërë ngeen jëf loolu lañ leen indiloon fii ci Pikine nee naa ne le euh, production moo woote arène nationale. ci diggante Diop 2 ak ki nga xamante ne mooy Mor Kankang nee naa la premier spécial bi moom la général di bëree ak ki nga xamante ne mooy la gars yi combat bu leen fàtte ni Eumeu Junior ak ki nga xamante ne mooy euh, appliqué dinañ ci dajee combat spécial. di seen daal tamit waa Icotaf waaw dañ maa defaral base bu mag waa Icotaf Mafia Prince bi ñoom ñëpp waaw ñoom Dev iPhone waa ñoom Mbaraj ñoom Thiam Siko ñoom Ndoy ñoom ñëpp waaw ñu ngi si jàpp bu baax baax chaque jour wallahi ñu wax ma xam nga di ma conseillé jël seen xaalis di ma ko jox defar base bu mag taxawal ma ko foofu noonu ñoom ama seen fay di leen waa si làmb bu baax a baax ak waa ginnaaw raay ñëpp di si woo tamit waa neuf maa bu baax a baax a bu dee dama veex tamit kàddu yoo xam ne maa ngi tub lu baax tamit dañoo jéem